da nga xooloon waaw waaw Sembal ak Sénégalais da nga xooloon da nga xooloon Sembal ak Sénégalais waaw waaw Sembal ak Sénégalais da nga xooli waaw waaw waaw waaw Sembal waaw lay lay lay na xam nga man li ma met fii Sénégal lu ma met dégg-dégg dama ko wax parce sa fu nga jàppee sa foofu la Sénégal ñu coupé seen courant Eh. man su bene damay dem gambi lépp. Eh. man mako ko coupé. Hmm. boy boy boy man du ma sa morom. dingo bu mana la matut mat na la mi di dingo ton nga ma nak ba ca kanamu yàlla nak ca dimension yi yàlla ya nekkon nga yakal mako du deug du yoon boy man lima ma naqari dem ba waral nuru bu rek dess ci nga yakal mako dingo di lolou du deug du yoon momo nit ñi kër gi kërug locataire la da ngay yam ci kudd ñu roof la ci geen di nga démb ci guddi tijji naa sama frigo bi, benn crème mun ta congelé ndax sa wax ju bari yëg sa buri bi danaa ko déplacé nag indi ko fii boy nga eh. nga baal ma yow olaan oh boo yow xooy oh, oh. kon yow yaay sama Sénégal yow man maanaam damay tuuxu dem Mauritanie lekk wala ma dem Gambie lekk bàyyi Sénégal lekk yow nga ke yàq yow yaay Sénégal bi xam nga fan nga war a dem yow nduxura ndax sa wax ju bari jeeg sa bërti bërti ji xajut ci miim kër lii nag lu nu

eh kenn mënu fi nelaw turum turum karang karang nekk yow yaa fi nekk di kii pour man dafa am ngént ci koñ yow lu tax nga réew yow doo sénégalais étranger ah nga ñëw di teg bur bi da nga ko war a fëgg mbéj ba mu bëgg de te nga bàyyi ko da nga mos a jox fii ñag lu mu lekk wala lu lu mu naan ah man su ma ma réew man man le le le premier damay fay néeg damay fay ndox damay fay courant yow boo tuddee sama réew wante nag da fekk yow yaa ma gën réew parce que man man man man sa morom ko dul sa morom de yow da ngaa réew may na ma ma duñ la may dara da nga réew man mi fay kar di fay suma bopp ah nga ne taw gars yi gën bi am lu mu luy. ah yabaat. may na ma yow nag yabaat kii tamit ka am fukk mbéj mu dee benn yoon yow doo Sénégal taw ba kan moo ubbi forage neexul ba neexul waaye dëkkandoo dafa am àq. wallaahi ak mhm. akay dëkk. la man baa jëkk. dara coow dootuma ko def ci kër gi ndax dëkkandoo daa am ah wax na dëgg yaa rek yaa am dëgg yow gis nga ak dëkkandoo num la rombe gis na ma kon ka ak dëkkandoo tut am na jëkkër hein am na jëkkër ma sàkka kii yow kañ nga ñëw fi man dem man man barki dem quatre jours laa am si ñoo si bokk yow si si nag yàlla bu mu mucc si moom ah! kela gi gis nga li mu gis. et eh, ñett kii fii la dëkk ñaata lu yaat lay fay lu ma xam trop kii kanam man su may fay ñaar war na fay ñeent. kii juróom lay fay. parce que lii comme panu ndawal bu tuuru nii rek tasaaro. ah. ah Ibou Sow gis nga léegi leen laa jarul nga may kool ay bët xam nga yow caa yu defalee ngooñ nga tuur ripaas ba ki nopp yow lan nga bëgg a ànd Ibou Sow dama lay mere de su du woon sama waa ji bi ma la tuddee te parce que naa la bu yàgg waa ji moom mënuma ci def dara loolu at at doomu doomu nen ñaamal wala wóotu tuur bi dégg dee koy lekk yow da nga war a gis mel ni sa moroom. Kan ah kanaa gisoo si turandoo ni mu toll yow suma ah eh. kat gorkaay kanaa man damay bëgg waar bis ba passé na ah da ngay sa waajo sa waajo kanaa yow boo jëmee bay sëb wattu li waaw man li ma naqar dinaa la ko wax booy bii lii mu def sànq ci suba naqari na ma ba ca kanamu yàlla man gën naqari di nga sama gént gi mu yàq boobu ba léegi gént gi damay toog rek mu naan mes mes mes sama kanam ah sama gént gu neex gi ma yàqal eh, lii naqari na ma torop si loolu sax laa la soxlaa ndax dama bëgg comme ki yéen kool nañ kër gi yëpp maa leen gën joon bëgg ngeen def mboolom kër ndax olof dafa ne tàgg bu nekk am na jàppal man ma nekk borom kër gi comme comme moom xam nga tànk yi baaxul kële moom ñeenti nit la xaw ma juróomi nit xam nga duñu boole yow amoo bëñ kon may ma nekk seen kilif may def di dindi may dogal loolu moo gën a baax am déet. mbaa yëg nga ni njaw des nam xambit ko woni ɗum luy loolu ma ni eh. mbaa yëg nga ni njaw des nam xambit <laughs> ala mi anda ɗum loolu kaw ndax yow dangaa desee xam sa bopp nag dégg nga ma eh. dangaa desee xam sa bopp min min alaaj sow bi mumut pen alpha may ram jam pend jam aaruna jam maa kam suma bopp sow eh. kër gi eh. maa fi jiitu eh. yéen ñëpp fi ngeen ma fekk koñ bi it leen ma koo maîtriser di nga kon bu jiital di am ak joxe kër gi man mii la war a doon di nga te sax nag yow dandul fekk nit ñi ñuy jël pël di ko dénk kër gi te nit ñi nekk fii ah loolu nan la mën a nekk e na nga ah. xam sa bopp de an ah, koolal an ah, mel ni yar naaw xoolal man du ma sa morom. Ah. dégg nga li ma la wax da ngaa réew ah dama dul nit pël nit. yow laa waxal pël nit bii maam. Eh, eh, eh, dama ne xoolal da oh, oh, ah ah man de yow galaat da nga doon. waaw soow man galaat soow bi man doon alma may dem benn jëm bu dee dem benn jëm bu dee kaw dana réew ah ci see pël nit. nangu naa pël nit ah man sa kala. kala hodum xoolal soo ma ko waxee di nga xam ne sa yoon nekk. dégg rek lii boo ko defee da nga ci joxe ndàmpaay lu mat man may tëgg. ah ku ne waa man dëgg laa waay. Eh, bàyyi li ngay def waay yaa ngi yóbbu sama bi haramtaan. Eh? ku ma taal yi alkaati gi nekk. dëgg la waaye loolu kaw ma ko woon. <laughs> moo tax des fois ma lay dérailler di doxal ak ah, yow yoo xamante ni. lii mooy loolu kay wax loolu su ma kawoon kay loolu. Ah? loolu kii kay loolu dérailler. xam nga ni maag yow fi mu toll nii kër gi daa war a neex nag nu nekk ci. jaww kay dina toj. ah waaw oh, fàttewoo na eh, alkaati gi. man kay maa war a. Ah, ah ah bu mu laal ma ne nag. <laughs> waajur daan kaa tëgg ndeke ah. xam nga yegam yow eh. bi boo leen taxawee naan wuy yegam yoo seen maam jooju eh. ba mu jaaxle maa ko dimbali eh. <laughs> ma ne nag xam nga hmm, ma bëgg nga jiital ma ma réglé kër gi sa xar mii yuga saw du am lu ko naqari bu ko tudd bàyyi sa yoon nekku ci kër. dégg yow mii doo am lu la naqari ci kër gi règlement yi dinaa ko teg étape par étape kenn du jàdd yoon. kenn du déranger kër gi du étage. ma ni maanaam maanaam kenn du jàdd yoon. laa kay yi loolu laa bëgg. lépp ci yoon léegi xam lu ñuy def. waaw léegi dam lay jox lépp waaye li ma wax def. ayca jaana tarkal wuyu ma wér de. ndaw rabin mi ci kër gi nag moom. bàyyi boo bàyyi kook sa baay caf ko rek ah ma ni ah, <laughs> it bokk na ci mission yi de eh? dégg nga waaw kaay ñu bokk ak. ah kaay ñu lu ma la bëgg hmm. laaj. moom kan moo ko dàmp. ah war naa ci yee weewu béy de nun yàlla béyal da nga mas gis su may béy. déedéet dama ni. Ah. for naa ci weewu béy. foog fore sama gétt. nu ni man amu gétt fii Ndakaaru amu gétt kër mu ma. li tax mënoo yor gone ji. ñàkk a dégg-dégg gi nga am moo tax mënoo yor gone ji dama ne eh. for naa ci weewu bëy weewu bëy nu ni ah. yenn taat ku ko yor sa juróom-ñaareel bi maam moo la dam ah, kii eh, ah, nag moom lakk gëm naa ma ko damp lenn rek ma jaaxal lu nu ko dampe dampe nu ko karité nag xam nga lu nu ko dampe eh. diw tiir da ko wax on a diw ñor diw tiir diw yëpp nga yàqu wonaa noonu ala am